jaajëf Balla fan la ñuy jëm. ñu dem ci euh, quatrième combat bi. Mbool quatrième Mbool ak Calki. Eh, eh. loolu saal ba mënu ko de mëri da leen maye nag mëri ku ci bëgg a daan nag ah déedéet nag da leen maye 1000 francs waaw mais 1500 ah? Eh, ah mais ci loo ne ko sant yàlla bu baax ah ginnaaw ñu sant yàlla julli si yéen di sant suñu ñaar waajur xam nga di sant waa Parcelles 1 ba 26 xam nga du nuyu ku si ma Ahmed Usine Ndoxa gis nañ taxawaayam si làmb ji waaw jàppal nañu bu baax di ko mu gën see waaw ku si mel suñu grand Lamine Ndiaye gaaw wàññi na si billet jënd lu bëri bëri su amee ñeent ñu mel ni moom rek waaw sant yàlla si billet waaw day baax xam nga di may Tafa Ndiaye au sérieux maa ngi koy nuyu bu baax waaw moom nee na dina ma wéewu borom États-Unis waa Papa Ndiaye nga nan grand la nuyu bu baax a baax a baax grand Niass mu États-Unis waaw maa ngi lay xaar tamit nga ma jàpp booy bi daan mu jàpp la daan la sant yàlla julli fi teew yëpp di bëgge sama waa gox waa grand xar yàlla bi si tam marine bi waa sama bi yëpp di bëgge waa ikiri Père Diaw leen toog di ko ñaanal yàlla mooy ko ndam bu ak mbooloo mbër bu dëkk grand F na na ko gars yi mu jàpp la la tooge kii moo la gën a xam ne bii balkaar bi la bii du yooyu noonu caw xiir mu dem cawul xiir mu dem billaay wallaay mbool dafa mel dafa lese dafa desee xam ne maçon turel la xam fii ñun booy dañuy bàcc muy leer rek dawal règle mu lis ndax teg birig foofu nga naan nga birig plein bee nekk nii a ah dégg nga nee mbool nga si pare dama mu tegle nii rek billaay wallaay wa taala yow da dof nee naa ko lu mu teg leen nii. ñax ñax état la. li muy tey non wér kii entraînement kii daa feebar. dërëm yow booy dawoo dërëm booy. entraînement fi ne maa ko doole fu ko gën a entraîné ñax booy ñeme woo. dafa ju li ngay wax fii nag na nga dëggal sa bopp booy bu bës. billahi wallahi nee naa ko dañu teg si ñu rëy ka maa ko. nee na nee na nee na doole. dégg nga li ma yow booy dawoo dërëm dafa nanga rek. maa ko doole. kii ba arbitre sifflé bu ko neexee suul tànk yi maa ne nga yelam ñu xeex maa du koy dóor bu mu bëgg a dee jàpp ko daan quelque man nga maa la doole wallahi tallahi boo leen ko waxee da ngay wax lu lamb ji amul sens maa la doole billahi wallahi boy ñëmoo taxal nga boy mbon Ah, Bamba Bamba Bamba Mbacke booy bu ñu tëjee si mbéq bi. Bamba combat bi combat bi eh, loolu. déglu loolu ñu ne si mbéq bi ay ndiram ñoo di nga eh. séance ay contact. mais nee na dégg nga na nee na combat bi revanche loolu booy bi moo daan caatu mari nga daan ñami ñami ay la la la te boobu sama basa dem nag war na yàlla yow déggoo ma boo delloo ci presse bi la yow laa lay boo yow yow si ma càgg bu baax billaah ñu ciy jàpp bu baax yow si ma càgg bu baax ba kii amul doole ah ma a tegle barki Serigne Bamba Mbacke ah, Mor gi nii du ma bàyyi ma fenn. léeg-léeg nga dégg Baye Baal dana ba tanaan la day gaaw day gaaw. moom Mbacke kan moo bëri pour combat une minute. quelque du bëre deux ko quelque du bëre laalaas deux minutes. combat am te ñu nga doon ñu nga ay nax boobu daa màgg kii amul doole wërsëg laa moom rek. booy man booy bu taw laa laa lay wax. barki Serigne Ba sa wërsëg ngay dagg la di set. booy da ngay doog doog la kii daa ba dikk. kii daa ba dikk démb nga. waaw yow yaay wax yow yaay yaa moomay wax ma bàyyi la ak wax ma boo waxee ci barki alxuraan karim. xam di woo di woo di woo waa waa waa waa kii ah di woo waa Pàcc Pàcc Suprême waa a séeréer yi xam nga ku ma sama sama mag Thier ah waa waa Pàcc Suprême yëpp ma leen di woo waa suuf pont waaw sama gars yi fa nekk bëri nañ macha allah xam nga yàgg nañ ma di yéene di ma ñaanal dama sax sama combat yi ñu jógee suuf pont ak mafia yëpp ñëw di ma jàppale xam nga di woo sama yaay baax sama papa waaw di ko wax nañ ma gën a ñaanal làmb ji waaw dama ko soxla tamit xam nga sama yaay meen day gis naa taxawaayam sonn na trop si làmb ji xam nga taan jaar kebe taan misel xam nga sama père père xam nga gis naa ñaanam chaque jour mu nga ñaan Grand Lamine Ndiaye moom tamit waaw waaw kon lu ma koy sànq jàpp na si làmb ji bu baax a baax a baax mm. amet isim ndox waaw moom gis nañ tamit taxawaam si làmb ji waaw mu gën see jàpp gaa yi jënd bolo gi mm. sama booy ni ma àndal si ah, ni waaw nan laay yoro xam nga làmb ji tamit waaw mu ngi si ba def léppam te nelawatul billaay wallaay daa pose liggéeyam léppam mm. di di ngir làmb ji xam nga laay baaf xam nga yiibu seexu naa FIFA tamit xam nga di nuyu yaayam waaw di yiibu tam di ko jaale papam xam nga daa wàññeeku yàlla na ko yàlla yërëm xaaree ko àjjana ak mboolam yaa ngi laal yaa ngi laal ci king bi waaw king boisson bi waaw gisoo ma tax ma sawar nii gisoo mosuma sawaree ni signature gisoo ma gisoo ma sawaree ni mosuma si yëg yow mooy da ngaa baax xam nga Fra bu ndaw tamit Fra bu ndaw ah. king bi nga ne yaa ngi koy ñëw. billaay dama siy naan lu bëri. boisson king ah. waaw tamit bon. bu baax a baax xam nga. Fra bu ndaw xale nga baax nga fi mënoo ñàkk. Fra bu ndaw dafa leer xam nga ma leen sant waaw ñoom chaque jour ñu jàppale ma contact bu bëree bëri sama kosu grand aada tamit xam nga grand 4-4. Mm. waaw làmb ji jàpp nañ sama mag code faal parce que Casamance ah. ñëpp rek di la woo làmb ji sa làmb la nag waaw teg fa jeexal bi la jaajëf eh, maa ngi woo ma fi ak grand xare yàlla bi yëpp kii calki bu dérange bi la doomu doomu xare yàlla grand fi boo leen ko jàppale maa ngi woo ma fi ak kulli xola képp kuy kii liggéey nga yow booy yaa ngi nii da ngaa bokk ba sonn mënoo ñàkk booy kii calki bu dérange bi la eh, doomu xare yàlla grand fi yow booy da ngaa dof rek maa ngi woo xola ma fi ak grand fi yëpp xare yàlla yëpp booy bàyyi ko mu woote mbool woo waa Samba Kolobane asalem maa ngi woo ñëpp Derklé Cité Marine eh. ñëpp maa ngi woo maa ngi woo waa Tunduba di woo kulli mafia buy dox ci kaw temps maa lay woo maa lay bëggee di woo Ibou Lafou ci combat bi maa ngi woo Ibou Lafou mu ñëw jàpp ci combat bi di ñaanal dof nday bi bi caabi féetee ginnaaw yàlla na ko sunu borom defal ndam daal génnee ko foofu mu nekk. di ko ñaanal ak képp ko fa ne. Ah, gërëm professeur Sidibé professeur Sidibé jàpp na si combat bu baax billaahi wallaahi jàmbaar ci biir jàmbaar yi billaahi wallaahi maa lay maa bu baax. jàppale ñun ay doomu parcelle lañ ñoom Ibulaay waaw ñoom ñëpp wala ñoo jàppale xam nga waa jàmbaar yëpp wala ñoo génn jàppale ñu waaw kontaan nañu ci yéen kontaan nañu ci yéen bu baax jërëjëf jërëjëf euh, balaa ñu dem ci cinquième combat bi ah. Ibulaay mi ngi noonu di dóor Ibulaay ngi ah. Ah. borom xel comme automobile aussi Modou Baye Fall Modou Baye Fall moom tamit mi ngi doog a yegg ñoom ñëpp ay promoteur lañu. Mhm. promoteur yi bu kenn xewle ñoom ñëpp dañuy génn ku ci nekk jàppale mhm. sa morom suñu père Modou Bey moom tamit mi ngi noonu di door a si ñoom ñëpp dañu ñëw ngir soutenir seen frère ah Mor Diouf ci bésu le 17 incha allah ñu jëm ci cinquième combat bi ah. ci Boy Silla ak ki nga xamante ne moom mooy caatu tund ba eh. caatu tund ba boo yooyu caatu tund ba yooyu de day maye. waaw. waaw. waaw. waaw. waaw. booy wuy ma. ko balaa ngeen di commencé. fii amul yooyu. fii signature la xoolal. signature ngeen di ah, xoolal ah. mën ngeen a jaay seen combat te bu leen laalante. maa la wax.